tey lan moo waral seen euh, janoo ak taskatu xabaar. waaw tey li waral sunu janoo ak taskatu xibaar yi mooy dañu yëgoon information il y deux semaines que ni euh, le maire de la ville de Pikine dafa bindoon au ministre de l'environnement pour le déclassement d'une partie la forêt en l'occurrence dix hectares pour que ñu mën ko affecter à des à des cimetières nag ci sens boobu la plateforme bi juddoo maanaam ay association yu bëri ñoo daje. Euh, méngale seen taxawaay pour xeex pour askanu mbaaw et pour l'intérêt de mbaaw. lan ngeen di xeex exactement. li ñuy xeex exactement mooy fexe ba forêt classée bi liñ ko laal déjà doy na ñu fexe ba kenn dootu ko laal. parce que mooy constituer le seul pour ne pas bon dañuy wax ne mooy le deuxième poumon vert mais en réalité la forêt classée de Mbao mooy le seul poumon vert de Dakar te Dakar mooy la ville la plus polluée du Sénégal. Et aujourd'hui, toucher la forêt classée de Mbao, c'est un peu asphyxier Dakar. moo tax ñu ne ñun tey dañu taxaw tem pour fexe ba forêt classée bi 10 hectares yooyu ñu si bëgg déclassé ñu bañ ko laal loolu moo tax a jóg principalement. léegi seen plan d'action pour xeex euh, décision boobu nga xamante ne am na ba pare lan la. waaw suñu plan d'action lii dafa nekk euh, la deuxième action parce que njëkk nañ def euh, ce matin un plateau à la 2STV. donc am na benn euh, plan d'action au niveau médiatique boo xam ne ñu ngi koy dérouler mais am na également relation publique maanaam euh, def nañ tout une liste de personalité politique euh, religieuses et coutumières yoo xam ne ñoom ñëpp war nañ dem ci ñoom pour sensibiliser leen sur la question donc aujourd'hui on doit rencontrer cet après-midi l'ancien président de l'Assemblée nationale monsieur Mamadou Seck on a rencontré on a déjà rencontré le maire te war nañu pour waxtaan ak moom ci li nga xam ne nii mooy projet bi maanaam moom lan moo ciy taxawaayam lan moo ciy gis-gisam donc daal euh, lii point de départ la mais parallèlement ak li ñuy def nii am nañ benn plan d'action boo xam ne muy sous-préfet di préfet di commandant de brigade di chef euh, de quartier di chef de village ñoom ñëpp commencé nañ déjà di leen seet yi démb seeti nañ les chef de quartier et les et les imams mais euh, ragaloo leen euh, seen daje bi ngeen di daje mu nekk loo xamante ne politique moo ko laal. de loolu ragaluñ ko euh, daje bi mënul nekk daje politique parce que comme ni ma ko waxee plateforme bi ñi ko constituer ay association lañ yoo xam ne nii ils ont euh, ils n'ont pas en fait de but politique maanaam politique taxu leen a jóg. leen tax a jóg mooy leen l'intérêt de mbaaw donc aw ma benn sikki sàkk ne associé plateforme bii nii politique mën na ko infiltrer mën na ko yàq. fray classé bi comme ni nu ko waxee sànq poumon ver suñ koy wax comme ni ko sama xarit bi waxee léegi mooy nii dafa nekk euh, loo xam ni daanaka buñ ko laalee nit ki mën na bañ a dund image boobu lañ ci war a jàngat te ñu xam fi gars yi jëm parce que bii euh, du moo njëkk si ñu teg jéego yu mel noonu ndaxte bu yàggul dara amoon na bu meloon noonu ci affaire um, ah, marita kii bi affaire bi amoon si buntu wetu croisement Kër Massar bi bi gars yi defee riposte ñu dellu ginnaaw tey tamit ñu ñëwaat ñu gisaat ay nit tamit yoo xam ni ñu ngi waat ci loolu te teguñu dara suñu suñuy gët lu leer kon mënuñoo taxaw di seetaan aussi ba ah, ba ba li dal géejawaay dal ñu mooy que ñu ñu ñu ñu ñu déclassé Foray bi ba pare ñuy doog a ñëw naan dañuy riposter balaa boobu nag dañuy attu guvernement bi attu le président de la république attu ministre de l'environnement bi fi nekk nga xam ni moom cëram cëru mbaaw la donc moom kon war na mën a jiitu si combat bi protéger waa mbaaw. mais mais monsieur Mbaye euh, yéen est-ce que nekkul da ngeen yaa xamti parce que euh, amagul décret bu déclassifier dara kon lan moo waral coow li. waaw amagul décret mais yëg nañ ni décret bi mi ngi en gestation donc décret bi yëg nañ am mu ne en gestation te buñ suñu toogee ba gars yi génne décret bi bu boobaa bay day bay day wuy mbuus te dan naan la cimetière lan lay wax mais est-ce que cimetière rek lañ ñuy defaral xamuñu. parce que cimetière bi mën nañ ci laaxaale après école après ñu laaxaale ci lycée après ñu laaxaale ci leneen après ñu laaxaale laaxaale ci logement sociaux te bu boobaa li ci gën a graaw mooy les mêmes personne ñoom ñooy bénéficier wu si lool te ñun parewuñ pour ah, problème bi sax dafa nekkul nii ay euh, forêt bi dafa amul lu ko gën a utile instant bi parce que niveau de polition bi à Dakar ñëpp xam nañ ko Dakar fait partie des villes les plus polluées au monde kon ñun ñu ñuy gën a tegaat loolu inondation bi ñu ñëpp gis nañ ko ni ñu koy dundee à mbaaw ku dëkk mbaaw xam nga ne yaa ngi dund inondation mari marigot bi boo fa demee am dafay daw ndax salte curage bi foo waroon am sax des na loolu yëpp mu nekk liggéey yoo xam ni waroon nañ ko mën a def ñoom defuñu ko ñu ñuy wax ay cimetière Pikine boo xam ne euh, département Pikine am na cimetière yu baax yoo xam ne buñ koy yokkoon au niveau de du wetu wetu arène nationale bi des na espace bu la neexee nga dem bu ak sa caméra da ngay des na lu tax ñoom mënuñoo yokk foofu beneen bi mooy mbaaw comme ni ko sama xarit bi waxee léegi mbaaw am na ñetti cimetière léegi nag cimetière yooyu mbaaw des loolu loolu noonu kun fi bëgg a denc mën na la fi denc si forêt classée bi boo demee tool jaas am na cimetière déggoon nga coowu miir bi temps yi miir bi ñu doon wax donc kon nan la ñuy doyewaat ay ay daggaat àll bi te àll bi dañ ko dagg ba pare parce que boo xoolee. Euh, fi mu toll nii Mbao mooy commune bi nga xam ni dañ ko découper à quatre à cinq parties parce que boo xoolee raay jaar na fi ñaari tali ñaari ñaari route nationale jaar ci muy autoroute à péage bi ak route nationale A donc nga gis loolu yëpp mu nekk ay problèmes yoo xam ne raay euh, terre bi ñëwaat jaaraat fi nga xam ne on est en on est ba pare gars yi fi bëgguñu sonal si loo xam ni xëy na seen intérêt ay li ci nekk liñ ci lëmat si biir waxuñu ñu ko. lii mu nekk problème boo xam ne ça concerne tous les waa te yemul foofu rek tous les Dakarois tous les Sénégalais parce que dafa nekk lu am solo environnement benn poumon vert bi ñu desee di jouer rôle am manqué na sax ñu bokk ko saax saaxee donc je crois que képp kuy citoyen dëkk Sénégal rawatina nga dëkk Dakar bokk ci dëkkuwaayu mbaaw war nga sentir sa bopp concerné donc euh, et ñu yàgg yëngatu ci environnement ku ñu gis xam ne yàgg nañ dafay nettoyage ay reboisement donc mu nekk tamit héritage bu ñu fi suñu ay maam bàyyil parce que forêt bi suñu ay maam ñoo ko ju juddu fi naturellement dañ ko dañ ko planté donc ay bu ma gisee lu ñu planté ay nit planté ko seen génération am na ñu ciy dund ba léegi beneen génération ñëw xamuñu njëriñ loolu bëgg ko yàq noonu juste.